Booy danañ la ziar bu wér. ci baa nii rek. def lan barki yonent ñu ngi nii rek. waaw di waajal suñu combat le premier. Hmm. ñu nag Papa Sow. waaw koy du ñaanal nag yàlla defal lu yaatoo yaatu ak Serigne Touba. Papa Sow diis na jamono jii de. non xale bi si yoon la nekk day dem. tey mag waruñu ko mën a téye. mooy mag. Papa Sow mbaa mu tukkal la mbaa mu tukkal mënul tukkal jamono. mais Papa du mag mbaa mu tukkal la mbaa mu tukkal mënul tukkal jamono. xanaa doo dégg ñu naan ngel doole Siteu du moroomu kàccoor ngaa ko tukkal kenn du ko per ngel ngàccoor fii du faana faana de. la du faana faana tarkindaa la Papa Sow faana faana la. mais seen ak la laaj. jàmbaar. ful la ak fayda yàlla. jàmbaar foofu la fekk ndax équipe Papa Sow jàmbaar wrestling académie la tudd. Hmm, day xaar. ca xaar jamono neex mee ma jaagal laa koy booleel mu xaarloo ko. day pas doo dégg ñu naan Siteu jaadu bi paa bu gàtt bu ñuul bi. mooy kan maamu ba ma juune ngeem la indaale. Eh. comme Siteu su mënul bëree kon day tooñ xam nga. kon daa fekk ngeem li ci digg kër gi. doo dégg ñu naan Toucaras mi dina wala disi na disi na boonu Kayar. loolu de déggagu ma ko. Toucaras mi dina wala disi na disi na boonu Kayar borom taxu ënkum ci li mbàddaan bi tax bi nga xamante ne kenn dafa sangoo ñàmpe. lu ñu fay sangoo. ay mbomb lañ fay sangoo te xam nga ñun ñu fay sangoo ay mbomb. déedéet càmbaar yi ak tarkindaay yi. kon Papa Sow day pas ba jamono neex. mais mais mais mais yéen la moo tax ngeen am dégg. non dégg dafa fekk suñu nag rawatina suñu mag yi si la baa ma def ko suñu moo waral man la da ngay dal buu dal baa dal ba ca des dal sa baraara borom njurub njare bi da ngay yàq sa njëg ma jaay si njëg ñu la doomi jàmm gën ne abu ñu taar abu ñu judu ku ñu tooñ ñu baala la ku ñaan ñu may la waaye ay ku ñu nar a laal mi lay yel min ki nga xam ne bu jugee àdduna jug mu ngi ni toog jàmbaar ji gërëmal sërëmal ngay def mu naan tatas dañ koy yemale foofu bu ragal dara. asib <laughs> ah, waaw noonu la demee. sant alhamdulilah. yéen a ci jàmm. waaw kul kay. tey naka ngeen waajee seen diggante yéen ak Papa Sow. ñun ak Papa pare nañ Papa laminam la yor rek di naan galaasam toog si ay kilimam di wax ñun pare nañ démb. da nga Papa liggéey. non Papa fu mu di ko lu ko cité wax xanaa. xale ah, seetaanu loo ko démb. Papa non man Papa du ma ko sax lijjanti parce que xam naa ne parewul te ñun dañoo pare démb tey soog a ñëw. xanaa déglu ko Siteu wax. waaw soo combat bi deux ans yu manqué xaw ma deux ans yu man nga ne paa ñun ñun mos ñun combat bañ ko jëlee ba léegi ñu ngi liggéey mosu ñëw noppale ko chaque jour ñu ngi liggéey moom day wax rek wax rek la am si combat bi. mais papa day jëf de. déglu ko Siteu wax xanaa. dégguma ko de. moom lu mu pare benn ñun pare nañ ko dix ñu ko xaar parce que ñoo ko gën a féete xale ñoo ko gën a doon ndaw te lu mu bëgg lu ne rek ñun bëgg nañ lu ko taw ñun pare nañ de moom rek nañuy xaar amuñu lu ñu siy tiit nag dem dus dem rek jëli ko ñëwaat billaahi. <laughs> saa loo wax ci wax ci loolu. jàmbaar ji yàlla dafa def Siteu man la tuddee combat moo Papa Sow. laay yow mii nii. barke alxuraan man la dof bi gerte gënal yàpp. yow waaw këñ. ndax dof bu manqué. waaw ndax do ndax dof bu manqué ay vices moos. <laughs> gerte la gënal yàpp. gerte ma gënal yàpp maa la. lan moo tax Siteu tuddee la combat bi. Siteu daal bu dee bëgg nga dégg dëgg man ak moom sama mbapat la. sama par ma koy topp naan ko di nga nekk champion di nga nekk champion yàlla def man sama làmmiñ su ma waxee moo di sax day dem ndax moo point bi ngay gis si te di ko wax man maa ko génne laay point wa ngi nii. laay bii lu ngeen naa génne. non tey jii buñ ko demandé dafay nekk buñ ko waxee nii dafay nekk la nga xamante ni tey jii ni dafay dafay jiir su nopp gaañ te na lépp loo gis rek surprise da cee dàq yaa ngi mais làmb ji lu la mën a wax daal mooy dina mel ni yaasa bu tuur bu la demee boor. yaasa bu tuur bu la demee boor. dina mel ni laax bu pant soo mi daw. foone ne. <laughs> koy lekk laa yërëm. xam nga papa dafa yor làmb ñëm di tararar yi te bërigo bu bërigo am dara. bu yëngu xottu bërigo yi rek ñoo fiy déranger. kararang kararang gi waaw waaw kararang kararang gi te papa Sow nee naa la tey jii bu doon salarié nii nii nii mi ngi fay ko trimestre am paa bu ndaw la. waaw du yàq bee ko yóbbaale. yow déggoo mala day sóobaale nii di waaw yaa ma gën a xam mais paa bu ndaw la lu garaaw nag laa lay wax xot bërigo yi ñoo fi ne di tànqale mais bërigo bu am dara daan tàcc taxaw mooy yalmin sita waa jaa ngi nii waaw dañ ko xoolee ñaari bët bu ko kenn piis. ñu ko ko jàq rek bañ ko piis. l'essentiel mooy le premier benn chaise rek la ñuy luyee ñu des ñëpp taxaw. benn siège ngeen di loué. le premier doo benn siège ñu des ñëpp taxaw carte gi tas njowaan ngi dagg na fooy dal nooy na foo ne. maa ngi fii lan saa yow. Ibaa ngi sama doomu ndey. Ibaa ngi nii Ibaa ngi nii sama doomu ndey. déet bàyyi rek waxal. waaw si eh, daan waaw booy ah, waaw ak eh, ah. gis ngeen maa ngi fii ak Jili ki nga xamante ni mooy tëggal Siteu bu bàkkoo mu neex ah bu tëggee mu neex lu lu Siteu def daal da koy day neex maanaam. ji li ziar naa. doomu ndey maa ngi lay bëggee di nuyu internet wasaare yëpp leen jox seen waaj waay kontaan seen teewaay bu baax a baax. mais ñu gis Siteu tey ñoo def point de nga ñëw teew fi euh, man yaakaar naa sax Sabaye dina ñëw mais dafa mel ni tey da ngeen ko aj waaw non dañ ko aj parce que xamal tax combat bi mën naa ne lu mënul loolu sabar mënu si ñàkk dinañ ko gungee sabar mais soxlawuñ si loolu lépp combat bi làmb digg géew ba la. loolu lañ ci soxla moo tax sabar lu mënul ñàkk la rek dinañ ko def Siteu moom du chaque jour guddeeg bëccëg ñooy nekk ñoo bokk ko ñoo book dëkk mën naa ne sax buñ neexee ñooy bokk fanaan yee kon du loolu mais suñ teewaay mënul ñàkk ndax fuñ nekk ñoo fay nekkandoo ñoo bokk fuñ jógee ñoo bokk fu ñuy dem après ñoo bokk fu ñu fanaan noonu la demee mais sabar moom daam am heure bu mu war a ñëw. mais su ma déggee ni ngay waxee dafa mel ni da ngeen fonk làmb ji. non bien sûr xam nga tey yow ñun mënuñ nekk ay xale yu ndaw yaa ngi dégg xëy na yàlla moo def li muy def rek ku ñu xool foog ñu mag mais Siteu 30 fanweeri at la am suñu ñoo maase 30 ans la am ñëpp ay 90 lañ yaa ngi dégg mënuñu nekk ay booy ndaw yaa yàgg faral Papa saw mu nekk pa mu nekk mag di bëri ñun ñu nekk ay xale. ba tey ñun ñii ñu nekk ay mag moom màgget na mu taxaw am audience waat wax li mu wax si làmb ji ñu ñu bañ ko fonk lu lool su ñàkk jom la loolu mënul ne te te lu nekkul li mu wax noonu de làmb ji ba mu taxee di avant corona ba tey musuñu bàyyi. daa neex rek moom. mais dama dégg mu ne li mu doon gën a ragal moom la gisu ci yéen ndax dafa yaakaaroon ci yéen doole te ndaysaan antaw na ne loolu loolu ci doon tiit te loolu tiitaangeem jeex na moom. Papa Sow élément élément ancien élément face la quoi nekkatul face mais élément face la bataille psychologique barki yàlla ñu man mii rek wax jooju ay ree la ma def bataille psychologique daanul Siteu Papa Sow léegi mu ne euh, Papa Sow dafa bëgg a jaxase Siteu ak ay supporteurs am. munul jaxase Siteu ay supporteurs am parce que Siteu ay supporteurs am neexalu leen neewu leen kaay affaire bi man la dañ koo xool ba mu neex la ñu ne ko affaire bi yow la ànd ak moom démb fii ñi fi nekk ñëpp gars yi dañoo bëgg Siteu te yàlla tax donc looloo ko mën a moo mën a tax gars yi bàyyi Siteu moom leen rek laa koy wax moom Papa Sow. bi voilà léegi ma laaj la benn affaire signature ba keroog da ngaa gis ñu fa doon yëkkati ay poids wala ñu mbapat fa kon doole nan la fa mën a feeñee foo xam ne dañoo ñëw taxaw fecc ñun ñu ñëw toj signature bi dafa lu fa kenn daful war a xaar làmb jo mu ñëw na di jaafeer bataille psychologique ne ko gis naa sa tubay nga solo ak nii wax jooju yàlla xam ne ne déranger wul si te centimètre au contraire da koo gën a indil problème ndax waat na. yàlla baax na ba ba la première bu si da ñëwee ba si stade bi ba mu gis ko moom ak ñi ma xam ne kii ñëw fi pour daanu si kattanu yàlla. mais naka nga ko waajal lu bees. mooy li ma wax rek man si Papa Sow laa basé wu fi mu nii tëggal si te comme day mbarañ mbaraji rek keroog dafa mbarañ mbaraji ba doyal di wax lu ne dama koy indil mbarañ mbaraji rek wax ji dafa bëri ne ko bu si ta nga wax bu deful nga wax waa léegi lu siy pexe dama naan ko na rocc piisam def si Siteu réseau daal di baax di si topp nag du ma. loolu loolu noo ko naa tëggee. mbarañ mbarañ mbarañ mbarañ wax ji dafa bari nga ne ma bural géej géej bural géej géej bural géej géej géej nga def ñu wax nga bàyyi ñu wax Siteu waa léegi lu ciy pexe xanaa nga rocc sa piis def si Siteu sa xol daa di neex du ma la wax tëgg bi fa laa yem. mais kontaan naa euh, leneen ngay gis. <laughs> maa ngi fi ak Elzo Elzo nuyu naa. fay naa la. ci loone sant Serigne Touba bu weer tey ñëw seet si def point presse tey naka ngeen naka ngeen wa naka ngeen waajalee seen diggante yéen ak Papa Sow. oui Papa Sow waa suñu grand frère la mbër la champion la. waa jiitu ñu si làmb ñun ñu bëreel ko combat yu ndaw mu doon bëri ay garan combat. non jawul baab moom loolu moom li ngay wax nii moom weesu na Elzo bàyyi see nga def nekk di baab xam nga xam nga loolu mooy prouvé ku la doon bëreel grand combat ngay ñëw xam nga di ko bëreel petit combat dem ba war a bëree moom loolu rek sant yàlla la avant tout di ko nuyu o passage nag di ko ñaanal làmb ji moom mu waa am wér am tan am wér bu baax a baax ba ñëw yàlla may ndam si des ngeen a ñaan paay jàpp ko bu baax non non coow jibul mais na ñëw paay duñ ko jàppee ba ñëwul bëre si lan lay mujjee mën na ñëw bu ngeen ñëwee rek ngeen def mu gën a coow jibul génn rek ñun moom la ñun xale lañ tam mag la làmb ji du paayee dugg si géew bi de gën a liggéey gën a fayeeku la billaa walaay Papa Sow di ko xool ne paa la. non yow xam nga ne Papa mooy bàyyi seexi nag. man ci dara. Papa mooy bàyyi seexi ku mayee sa taaw tamit xam nga ne kooku tamit ah doo gone te ngi doon rang pour mu may ma ko sax mais mooy loolu noonu. daa may taaw. billaahi papa kay day nelaw sax ah. billaahi. mais mais naka ngi si état de forme Siteu. non moom macha allah xam nga rek lamb ji moom kenn lamb ju nekk ak mu war. xam ñu ngi si mu ngi si di yeew fajar di matin midi soir di entraîner di ko teg si code xam nga affaire yi moom Papa Sow xëy na ay stratégie wax lay wax ak yooyu noonu nit da ngay lijjanti li nga entraînement. dégg si naan na bàyyi di ko booleek àdduna. lan la lan la lan la lan la ko Papa Sow. imaginer yow ngay entraîné taxaw naan nit ki kii entraîné wul kii nii ak nit doo ko bàyyi xel yow lijjanti li ngay entraîné làmb di ñëwee nga wane ko mais foo demee bay xool nit ki nu mu toll rek yaa ngi koy bàyyi xel. parce que nee na nee na euh, lim gënoon tiit ci gis ko. Hmm. doole la gënoon tiit ci mais li gis nii da. dafa dal xelam quoi ndax amu leen doole. Papa Sow li mu tiit daa bëri de lenn rek la si wax waaye li mu tiit xam nga ne avance tarkindaa yi ku ko jël rek di nga tiit ba làmb ja jeex da ngay tiit. Hmm. lenn la waxagu mais des na yeneen ak yeneen. des ba. yeneen ak yeneen ak yeneen daa jëfru di wax. maa ngi ñëwaat yooyu. billaay xam nga moom dafa ñëwoon bëgg ñoo jaxaseeg Sénégal far dugal boppam moo waat ci yàlla te yàlla mooy maye ñun dañ koy ñaan si kàttanu yàlla ak Serigne Touba. gis ko lim liggéeyee tax moo tax mu ne bu leen jàppee. moo waat daal na féete woo waat bi ba jour boobu ñu xool lu yàlla di def mat daa kàmbal boppam fi mu toll. instant yii dañoo bëggoon kàmbal de far yàlla nag weer ko moom mu kàmbal di waat di dogu naan mooy am ndam. waaw yàlla mooy maye ndam ba jour bi. billaahi. kontaan naa ci yow arakaay. Gaynde ziar naa la. delloo ziar weer. ci loone maa si jaamu. mel na nga am fas fas bi moom tey moom liggéeyi jiw. arène nationale fas yi ñooy dem. mi ngeen takk fas yi jëmale ko arène nationale. fas yi ñooy dem dafa jege duñu luwee benn oto bu ndaw wala njëga njaay fas yi ñooy dem arène nationale dafa jege soriwul méttiwul de loolu dina métti ci yéen. fas yi gàtt yi sax dañuy dem ñu toll ak Papa Sow. fas bu toll ak Papa Sow moom amul. day dem de ñoo jiite convent bi waaw. mais naka ngeen waaye seen diggante nii nag Papa Sow. Papa Sow ak adversaire boo xamante ni mosu leen am ku ni mel. Papa Sow adversaire la kon adversaire yëpp rek yi fi jaar yëpp ah adversaire la rek si taa ngi liggéey. waaw nekk si waaram bu baax a baax. mais da leen xool ne da leen parce que ni ngeen ni mu yaakaaroon noonu ngeen di toll tollu leen noonu. non seytaane la day jaxase. mënuñoo jaxase ak Siteu Siteu lu mu liggéey ah yéen si boote la bëgg a jaxase ak Siteu moo tax mu wax loolu. te lu mu liggéey doy nañu seytaane la day jaxase day jaxase Papa Sow ñu mu daan ñëpp bàyyi nañ. ñu mu daan nees. lan moom nees bëri nañ fi combat bu métti. ah nees a ko daan nees a ko daan de. ñi des ñëpp bàyyi nañ. Papa Sow ñu mu daan ñëpp booy lim fi ba suba ñëpp bàyyi nañ. kon daal da nga bëgg wax Papa Sow dafa xeewi. non Papa Sow dafa xeewi instant yii dañ koy jël ni pour moom dépasse rek. waaw lu mu daw dépassé rek. naka ngeen waajee bés ba supporter yi. non ñu ngi waaj ko ñu daan waajee rek ñëw si fair play quoi waaw di wax gars yi nañ takk max yi takk ko si yoon. bu ñu ñëwee def fair play ñëpp a ñuy séntu nag waaw 16 esat ku dëkk jàmm gën yàqu ko. siège stade yi ku dëkk jaamu gën yàqagu ko. yaa ngi wax lu am importance. siège de te ñu ngi ñaan képp ku supporter Siteu boo ñëwee nga toog seedaan Siteu Dame Papa Sow ñibbi nank si fair-play takkaat kaar yi topp yoon bi. bu ko defee rek kenn du leen gën. non incha allah rek loolu la ñuy def ndax kenn duñ ñu ku ñuy yee quoi. na Adama kaay fii. loo ne. sant Serigne Touba di ñaan tey ñu gis Siteu muy def point de presse naka ngeen di waajee combat bi. waaw combat bi ñu ko doon waajee rek lañ ko daan waajee Ah, defe naa ne jaratul wax quoi. xam nga ngeen wax de ndax Papa Sow moom ku ko am ku ne di nga wax te di nga jëf. non Papa Sow ku ko am foog nga wax foog nga jëf mais tey jii nii ñun Papa Sow am na foo xam suñu bët jéggi na foofu ndax xam nañ suñu mbër ndax ma tax ma wax la loolu kii ma lay waxal nii dama ko xam ba ma nekkee xale ba léegi man ak moom la Siteu barki yonent bi fépp toj na ko. mais est que ñeme naa xeex ak Papa Sow. xam ñeme na xeex. laay laa kii moo toj Mbour toj Caajaay toj Sanjara toj Tattaguine tot kees kaay bokkul Thiès ak foofa arène nationale la jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Papa Sow. Papa Sow. Papa Sow ndaanaan la de bi mu fi tasee fii ki nga xamante ne mooy nees ko lamb jooju beneen affaire la. du bëre du daan du teg du teewlu te du teel a teew te après combat bi day reposer day génn lamb ji bàyyi su ma la ko waxee nag mënoo ko gëm. lan la moo ngeen bëgg a génne Papa làmb ji. non day génn non instant Papa Sow mag la. instant bi Siteu dafa baax nii sax di ka ko jël nii sax di ko dimbali di ko may xaalis ndax pour l'instant pour mu am xaru tabax si seen waa kër mais Papa Sow pour l'instant nii imagine nga bëre ba bàyyi yow sa juma amoo kër sa bopp. ah bul dugg ci loolu. bul la ma la wax xam naa ko lu leer laa lay wax kii doomu jàmm gën la tarkindaa bi ngay waxal ma fi yaa darmango baa ngi nii maa taxaw maa seen xalifa baa ci xel. baax na ci kanam. noonu la fa demee nag. Mbër nuyu naa waaw fay nañ la bu baax a baax gars ci loone ñu sant yàlla sant yàlla bu baax. ñu ñëw seet si ki nga xamante ni mooy Siteu moo def point de presse di waaj digganteem moog Papa Sow naka ngeen nañ naka ngeen di waajee. lu leer ah, comme ni ñu doon waajee rek. waaw comme ni ñu doon waajee rek di ñaan yàlla mooy ñu ndam xam mooy loolu noonu la ñuy waajee rek. mais seen diggante yi nag Papa Sow lan laaj ndax gis nañ combat bi mu taxaw ak léegi xas-xas loo bi na seen diggante yow ak moom lu tax euh, respecté wu leen Papa Sow wala boog bi ngeen yaakaar bu ngeen ko jàppee combat bi jeex lan la. Papa Sow yow Papa Sow moom lañ gën a respecté suñu adversaire. Hmm. Papa Sow buñ ko respecté wul duñ nit. kon ay mala la doon ay dof. moo tax mu bu leen jàppee da leen di daan moo leen mën. waaw mais waxu waxam la rek. loolu moom si làmb lañ ko fekk moom te fi lañ koy bàyyee. mais ñun daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla mooy ñu ndam si kawam bu baax a baax. naka nga gisee état de ñun moom jour yi la ñuy xaar. billaahi gaynde mer la fanaanoo mais di ñaan yàlla suturaal ñu xam nga dañu àdduna ñaanal kontaan naa ci yow. barke sëñ Tuubaa dina baax.